ngeen jot suñu vidéo nag foo leen a jot moo leen vidéo boo a xam rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdallah wa ala alihi wa laa xawla wala quwwata illa billahi al ali al azim astafirullah al azim lazi laa ilaha illa huwa al hayy al qayyum wa tuubu ila allah laa ilaha illa allah sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sama mbokki jullit yi seen mbokk mu ñàkk solo ñu koy wax Moustapha Cissé Lo xadimul xadim mooy leen di baaxee wax ji te wax ji nga xam ne ji moom lay wax